te fi nga féete euh, te bal du takk jaasi du jóg Alaaji Mansour Mbaye euh, ndaanaa ni Sénégal yëpp ku ne yaa ngi yónnee message fu ne wax naa sànq ni way yi bari na euh, ñi ko way bari na macha allah Kiné Lam way na ko Adja Xaar way na ko ñoom ñëpp ku ne yaa ngi wane sa cofeel Fatou Guewel way na way na la Fatou Guewel keroog yaa ko présenté Sénégal super ndaje xale yi fekke wuñu loolu super ndaje booba mbeeraay mii may def beeraay mii nii booba euh, euh, super ndaje dama garaw papa xam nga man sax man yéen laa bokkal groupe <laughs> wallaay yéen laa bokkal groupe ak euh, Alaaji saan may way na ko moom itam way yu rëy macha allah sa diggante ak ndaanaani Sénégal yooyu ñii nga doon seeni i nijaay ñii nga doon seeni i baay ba kenn ku ne boo langee sax da ngay bëgg Alaaji Mansour même bu ñëwul ñaanam yegg si xanaa Alima di la ci laaj boobu nga ma mhm. laaj mhm. laaj bu mu dugg la waaye Alima bëggoon naa nag mhm. wax la it ni ndaanaan lu mag lii ki ñu alaaji baaba ñoŋ mu xadd mu Cheikh Seydi Alaaji Malick ba l'intellectuel baaba maa invité na ma fuuta le roi du Yela woo mbokkam yëpp ak fuuta yëpp nu daje ca dex ga fa xam ni sama dooma fa ne ki nga xam ni ba baayam demee ba tey kenn jooyul kër ndeyam jooyul kër baayam jooyul. Mhm. ku ñuy wax Papa Racine Sy. Mhm. dëgg la. Maal def nu kuy sama mbokk nag ma dimbali ci ngeen ma Mansour Mbaye. Mhm. te. ba Malick. génne dix juróomi naag. juróomi dix mètres bassin. ni Fuuta fekk si leen ma ci Mansour Mbaye. laa ba Cheikh Seydi Alhaji di wuyu gouverneur turandoom la àndal Alhaji Baba Ndiongo mooy mu xàddam bu rëy ba. waaye Baba Maal moom itam fierté africain yëpp la surtout nag le Sénégal. à ki nuy jooy barki démb. Mhm. di coon ballaago. xam ne turam bëtt la Sénégal. Mhm. turam bëtt la Afrique. Mhm. mu boole koog yar ak teggin. Mhm. waaye nag li mu doon ñaan yàlla may na ko. lu mu doon ñaan na yàgg lool ma yàgg lool waaye su ma fi jógee yal naa yal naa bàyyi ko ma doon. bàyyi dafa doom ju baax. dëgg la yar. dëgg la teggin. dëgg la kam na yëpp jooyul. kër baayam jooyul. nekkul wërsëgam moom rek. bàyyi na doom ju baax ku ñu wax coon balaago sekk. wallaay wali balaago sekk. artistes yooyu nag. xaar nu ànd. Mm-hmm. xam nga xaar. bu baax. Pape Malick def naa xam na xaar. Ah, ma. noo de noo de noo demee xaar. xam nga xaar moom euh, Morma Diaga ko jur. waaw. papa yëkkati micro bi. Morma Diaga moo jur xaar. waaw. Ah. moo jur nday may sa sama yaay. moo jur Mansour mbay ma jàgg léegi bi ñu demee ci pause bi rek. maa ngi maa ngi wax ak moom Adja Xaar Mbaye ma jàgg ndeysaan Xaar Mbaye mhm. nu am. Mhm. bu rafet. Mhm. foo xam ci Sénégal ànd nañu fu. walaay dëgg noonu la ñu ko waxee bi ñu demee seeti ko Tëngéej. waaye dara mosul yàqu suma digganteeg. déedéet déedéet. moo tax mu wéy mu wéy wu réew wa. wallaay. Fatou ku ñuy wax yaay nen na njaay di doomu sama jigéen ba sama xarit ba ajaratu aram jigéen socialiste ba socialiste bu mag ma yaayu parti ba doon kenn ci man mm-hmm. maa ngi laa jëmbat sama wàññi ak Ousmane Sène Bale mm-hmm. yaay nen ak ni sama doom mm-hmm. noo ma nii ndaanaan yi ngay génne noonu génneel Fatou Gueye ndeysaan waaw dëgg la de ma yóbbu ko instrument chanteur dëgg la. boobu mbaa ko yor yóbbu ko balaat. dëgg la doyul ma yóbbu ko jàkkaarloo. <laughs> Ah, la def ki ne laam. def daan awu jëm sek. Mhm. ndar ndar boobu la jàkkaarloo. Mhm. dëgg la boole yuusu. ak coon. neenu mhm. guddi. ak xaar mbay. ak Fambaye. ak jëbu ñoom day Fatou Ndiaye di awu ak Kiné ñoom Soda Mama ak ñoom Daaro. ba yàgg mel ni kinne déedéet kinne sama mbokk mi dama koy génne. waaw foo ko ñëwee man ko ci seen mag ko ñëwee. <laughs> dëgg la de jaal mu jaal mu saale. moo la wax lu rëy bala ngaa romb kinne naam xam naa sa jikko. xam naa sa ngor Mathiaka Fatim Ngoné ndaanaan na ngi. àndunu Italie loolu la ko wax de. wallaahi àndunu France. àndunu partout. sama jarbaat boobu it Youssou. Mhm. ba muy dem France comme li nga wax. dafa ne moom papa nijaay ma ne ko naan mun may fukk a dem Bercy. ay ay man kii suuf tuuf ba dara Bercy. mu mel nga léebu ma. nga léebu walaay. walaay walaay dëgg la waaw. keroog ba ma taxawee Bercy. ba ca ëllëg sa mu ñëw sama hôtel. Mm-hmm. ñëw sama chambre. Mm-hmm. ku ne bëggoon nekk Mansour Mbaye ku ne bëggoon nekk dëgg la may cof euh, nga léegi Dial Moussa Allé Malick léegi tudd nga ko léegi Dial Moussa Allé Malick xamul baayam mm-hmm. moo daan wel sama maam Cheikh Sidi Moussa Allé góor gi Moussa Allé moom itam maa ko ni maa lay génne. dama la yóbbu ci ndaanaan yu mag yi. dëgg de bay waaw. ñooñu ñëpp nag samay doom la di Soda Mama di di Ndeye Fatou di Darou nag Alassane Alassane nag kay ma wax la xam naa ndaanaan yi mhm. xam naa Gallo Mbaye. Mhm. xam naa mhm. xam naa Amane Ndiaye Samb. xam naa waaye xale bu mel ne Alassane. ko ñaan rek yàlla may ko gudd fan. yàlla may ko dinaa daan tabe. loolu jafe. ay millions la ma jox ne ma naa dem Makka. waaw daa daan tabe bu bu bu Makka yi bee ma dem. <laughs> daa daan tabe. yombul yombul yombul ah. yombul yombul. daa naan lu tabe lool bariwul. waaye Alassane lay def donc. mais papa euh, bëgg naa laaj tuuti. waaw. Euh, sa diggante ak làmb ji. waaw parce que lamb yow bi nga ci nekkee di ko incarné. dugg nga fu neex. Euh, bi nga ci nekkee di ko incarné. alors melul woon nii mu mel tey. booba dafa amoon personnalité. personnalité yëpp di ñëw ci làmb ci ministre yi di ñëw nitu aada yi di ñëw mhm. bu tàkkusaan jotee bu nit ñi jullee ba pare sañse ñu wut si làmb ci nga yore micro bi ak alaaji Moustapha Ndiaye ak ñoom Jibril Fall euh, booba làmb ak nii làmb mel tey yow ban gis-gis na ci am non non non non na nag mhm. foofu Abdoulaye Assane ministre de l'intérieur Ousmane Aliou Sylla Amadou Babacar Sarr ces grands hommes ñoo toog ci làmb ji seede bu ngay dëte moom la Mbayang Fall wo woyoon woy wuree bila seede bu ngay sottana dar géej ko wax dëgg la alam jiyéen Suwaadu Gueye ndey Fall Missine ndey Fatou Ba ñooñu ambatulu ambatulu booba laa mën booba laa mën Adja Ndaba Niang Fatou Diop mm. Diaga et tant d'autres Abou Cheikh Niang Mami mm. Fafou non non ñoo daan toog non ñoo daan toog lay Adja Ndaba Niang mooy jigéen ak Alaaji Basiru Diagne dëgg la Adja Ndawaña waaw mooy jigéen bu njëkk tëgg yooyu nag daawul am nag. ci dëgg-dëgg. ñu toog booba Adama Diakhaté day reporté. Alou day reporté. Ibrahima Dem day reporté. Abdou Bachir bu baax bi day reporté. <laughs> Pati Dieye Fall day reporté. ñooñu amu amatuñu. maa ngi bay wax nga dëgg papa yaa dugg ci làmb ji moom nag xam nga dafa am drapeau. Hmm? Euh, bu ko euh, euh, Gaston Mbengue. tuddee mu di drapeau bu rëy boo xam ne xam naa kooku moom drapeau Sénégal la. drapeau Sénégal la. ndax géwél yi. Hmm. du ñu nangu ku leen ko yóbbu. déedéet géer ñi. déedéet du ñu nangu ku leen ko yóbbu. déedéet ah ñu baax ñi ci réew mi. Hmm. du ñu nangu ku leen ko yóbbu. ba ci gën a yéeme nag affiche yaa nga ba foog nga limi. maa la wax loolu. foo <laughs> Gaston la ko tasaare ci àdduna bi. papa. xam nga kontaan naa trop bi nga dugalee loolu. dëgg la xam nga Alima sama yaay duñu ko transféré dara indi ko dugg. Adja Ngone Tall. waaw. nga lu war a transfert tax. ba bàyyi Seydi Jamil. moom xëy sàll. bàyyi Mansour borom daara ji. Mm-hmm. bàyyi Cheikh Sidi Ahmed Tidiane bàyyi Seydi Abdou Aziz mhm. bàyyi turandoo Papa Malick mii mhm. turandoo Siri Boubacar mii toog ci xilaafa gi mhm. dafa nekk Louga ci booba sama am Amadou Mbaye moo nekk ak moom moo koy jotale ci jàkk yi nooy bokk añ ñooy bokk reer Sidi Boubacar nag ñaan magu ya muqaddam ya Alaaji Salif Mbeng ñoom Isaaxa Guèye Salif Mbengue xam nga ku ko tuddee. kan la Gaston Mbengue mi. ah Gaston Salif Mbengue maam ba baayam la ñu ko tuddee. Gaston xaalis waaw. ñu ñaan nag sama yaay pour nu transférer ko indi ko Louga pour sama papa nekk ci wetu Sidiou Boubacar di añ moom di reer ak moom di ndékkee moom ak di ko jot nii. kër gën dëkkoon ci Louga rek di kër Cheikh Seydi El Hadji Malick mhm. moo kër Momar Gueye noo jëloo. Momar man ak Yacine Gaye bokk ndey ak baay Yacine Gaye jur Kumba dem mu jur mu jur am waaw mhm. Gaston Mbengue nag mënuma ko fay dëgg la ndax man seetaanatuma làmb wallaay dafa nekkatuma reportage wallaay waaye drapeau bu mu am mën na ko tuddee drapeau mu mënu koy wax drapeau ba léegi mu siiw Gaston Mbengue moo fi jëkk wax drapeau Mansour Mbaye dëgg la boobu tuddee wuñu kenn drapeau dëgg la làmb ji it lu mu am ci làmb ji mhm. bu defee ay comptam ba pare. Mhm. day ñëw ni ma lii mooy sa wàll. macha allah ndax xaali mbeng baayam daf doon ci yu sama ndey. Mhm. soo da sàmm ndeyam mi xi jur amita mbeng moom itam di xaritu mu wane taal. Gaston kilifa gu mu xam. Mhm. ci Sénégal. ak ministre. dañ la wax Mansour moom itam maa ngi koo ñaanal. yàlla may ko gudd fan yàlla may ko wér. nag euh, Alima nag bala ngay tëj waxtaan xam naa ca kanam lu tudd lu koy tëj. Mhm. waaye maa ngi gërëm bu baax a baax nag. Mhm. maam fi di jabaru tanoor. Mhm. sama jarbaata. dëgg la. maa ngi lay ma dëkk ca ndar. dëgg la. aram mi awo tanoor. léegi boo génnee daa gis photo boo xam ni c'est le jour de l'indépendance maa bàyyi arama ca ànd. dëgg la waaye maam fi li mu def démb ñitu démb rek koy def. nitu démb xam mooy lan. mooy lan mooy fàttaliku démb. walaay dëgg la mbay. tanoor nga ca ngeen ñeen waaye démb dundalaat la tanoor. dëgg la kon nu koy ñaanal suy doom ji ba noppi nag Amadou Sall ñëw doomu président Macky. dëgg la fa la yendu. dëgg mm-hmm. xam ne mooy taawu Ousmane Tanor. dëgg la ñoom ñëpp. Mm-hmm. nu yendu fa. Mm-hmm. waxtaan fa waxtaan wi xam ni mooy waxtaanu démb. kon nag ci dëgg-dëgg maam fi lu noonu ko ndokkee di ñaan si bi yàlla ci yàlla def barke amiin incha allah mu ngoog euh, Alaaji Youssou Dieng euh, xam naa ne fi mu ne euh, lii président tudde woon fast track ci la ñu ci la ñu toll ndax li ñu desee ci temps bareetul papa sa diggante ak première dame yi première dame yu Sénégal yi diggante Colette Senghor Elisabeth ak Viviane ba ci première dame Mariam Faye sa diggante ak ñooñu Youssou Pape Malick photo photo baa ngi. dëgg la yéen a président Senghor ak kan ak Colette. lool muy français bu bac. Mhm. dëkk Normandie. waaye bëggoon Sénégalais yi lool. xàmme woon na ma nag. Mhm. moom Colette. bu dee Elisabeth. Pape Malick man la daan jox bassin yi. fu ma ko jëmee. Alima. ma fu ma ko jëmee. ci Alaaji Abdul Aziz. moom Elisabeth. waaw mu koy defee ci palais bi. dafa ndekki. yóbbu. jagsaaw. wala ay numaar yi. ci Alaaji Abdul Aziz. noonu la meloon. ak soxna May. bu Xaadimu Rasuul soxna waaw mel ko nag ak sang ba kan nga xam ni boo ko tuddee il faut nga xam ni ci dëgg-dëgg daf da lu rëy ca Tuuba di kan di Cheikh Abdoul Ahad di Élisabeth solidarité et partage def mbootaay gu googu bu dee Viviane. Mm-hmm. éducation. dëgg wax Babacar Diagne. Mm-hmm. ancien directeur de la télévision. Mm-hmm. ni koy li Mansour bay di waxe ba bërki démb ci téléthon bii Abla président Wade ni na ko waxal dem bëgg su may demati ànd ak Mansour à travers le Sénégal. waaw moom Viviane. Viviane. Viviane. Babacar wax nga ko man ko bàyyi ko rek ba yem Dakar. <laughs> ndeysaan. <laughs> première dame am nañu benn surprise léegi boo xam ne ñu fekk si ci biir surprise bu mag ah, ah, euh, euh, première dame Marième Faye Sall balaa surprise bi di dugg si yaayu Amadou palais bi nous sommes indépendants mm-hmm. Alima mm-hmm. li tax nous sommes indépendants général de fi ñëw mm-hmm. ni ku bëgg dem indépendance wotel non wotel non oui ku bëgg rester dans la communauté française woteel wëy jaar ci Ahmed Sékou Touré noonu ko bari ci wot non je parle à l'indépendance immédiate dëgg la ñëw Ndakaaru fekk fi Senghor fekk fi Mamadou Dia la bi ngay rek la fekk wal joojo teeru ko ak discours am bu ba ca place Protet waaye Senghor loolu doyul nag nan dem Tëngéej Lamine Gueye ni loolu doyul nañ dem tëggeej président Dia ni loolu doyul nañ dem tëggeej pour seet ndax du ñuy wote non wala wëy. Mm-hmm. Eh, bis boobu ca tëggeej coow la bari. dëgg ndax Sénégal a fa daje. Mm-hmm. ñu ne comme coow li bari na. Mm-hmm. nan tànn kenn mu défendre le oui. nu tànn kenn mu défendre le non. nu tànn Dut Thiam.

pour rester dans la communauté française pour préparer l'indépendance. waaye boo demee indépendance rek ces grandes dames ñu baax ñooñu. ñi Alima tudd léegi. di Colette. di Elisabeth. di Viviane. ku ci ne def ko la nga waroon def. waaye nag am ku yegg si nag. kii musóor musóor wu jot. dëgg la. mooy kan mooy kii woddu woddu wu jot. wallaay mooy kan mooy kii musóoru musóor gu jot. wallaay woddu woddu wu jot. sol mbubb bu jot. mooy kan mooy ka dem ci église ba. dëgg la mooy kan mooy ka dem ca jàkka ya ka dem ci jumaa ya ka dem ci hôpital ya. mooy kan mooy la grande sénégalaise Marième Faye Sall. <laughs> loolu ay indépendance. indépendance nu en même temps 60 waaye pare bi nag bi Marième Faye Sall ñëwee nag ci la ñu indépendance. Ah. waaw ci lay woo Sénégal yëpp ñëpp ñëw. ñu leen ñëw leen. ci palais bi jàpp leen bés. ma nga Touba. Mhm. ma nga Niassène. Mhm. ma nga Thiénaba. ma nga Laayeen. ma nga Kër Monseigneur. Mhm. ma ngi fépp à travers le senegal ma ngi ma ma ci hôpital ya. c'est nga ca jàkka ya. nga ca jumaa ya. nga ca église kooku nag Sénégal lañ koy soog a am. mooy mooy borom bu njëkk bii ñu ñuy wan. Ah, eh, ci écran bi première dame mooy defu doon ci palais bi. dëgg moo tax ma ne ko. wala ay indépendance 1960 yu bëri jaar na fi. Uh-huh. waaye bi nga yegg see nag la ñu xam ne la grande Sénégal am na indépendance. <laughs> wallaay Mbaye rapidement surprise bi dugg si. sa diggante ak jàngu bi. église bi église bi. monsieur monsieur Thiandoum dafa soppoon. Uh-huh. cardinal Thiandoum est-ce que xam nga ni ma amee soppi ci diine ji noonu laa amee soppi ci catholique yi. loolu la ñu ah, xam nga dugg ci jàngu bi noonu la bëggee. wallaay. Abbé Jacques Seck Abbé Jacques Seck. waaw ak Théodore Adrien Sarr. waaw dégg nga yéen yéen émission c'est vrai. man aw ma frontière ci diine ji. dëgg la yi ci politique bi. ñëpp laa seqal jàmm. ñëpp ndax man sama baay noonu la meloon. dëgg euh, euh, fi fi Sénégal toll. Mhm. Euh, réseaux sociaux am léegi ci amul woon. da ngay xool ci réseaux sociaux yi xale yi doorante di jéem sax laay wax ndax mënuñoo doorante ëttu diine yi ndax la bokk bokk nañ ko ñooñ lañu xam-xam nañ ko ba noppi. Mhm. te xam nañ li ñu bokk ñoom ñëpp yenn saa yi nga gis xale yi réseaux sociaux ñu ci waxante yenn yu ñaaw yi. Mhm. te kenn ku ci ne ci ñi ñuy seetaan moo xam ci Facebook bi ba ci YouTube sax ci télé yi ci xale yi bëgg lan ngay wax xale yooyu. di leen wax rek doon am yar am teggin. Mm-hmm. surtout. waaye nag léegi li ñuy ci rajo yi. Mm-hmm. jaaduwul. Ah. li ñuy dégg ci rajo yi. Mm. jaaduwul. waxante diine. Mm. nga wax ko lu ñaaw. Mm. kilifa aada. nga wax ko lu ñaaw. sa lay wala sa baay wala jigéen wala sa maam wala sa nijaay loolu amul woon Sénégal. moo tax rajo sociaux yi wan nañu seetaat. seen i mbir. ngir Sénégal xamul wax lu ñaaw. Sénégal xamul def lu ñaaw. Sénégal xamul nett lu ñaaw. waaye léegi li ngay dégg ba ay gor léegi dootuñu déglu rajo. Mhm. dootuñu seeti télévision. Mhm. pour lu ñaaw li di wax. Mhm. loolu de du Sénégal kon may ñaanu jeunesse bi ngeen gën a góorgóorlu rek. yéenay remplacé Macky. yéenay remplacer Aminata Mbengue. Mhm. yéenay remplacer Idrissa Seck. Mhm. et tant d'autres. dëgg la yéenay nekk membre gouvernement. Mhm. yéenay nekk industrie yu mag yi. et kon ñu leen di ñaan rek ñi nekk dans les universités seen ndey yi seen baay yi. ci yéen la ñu compter ëllëg. pour yéen ñëpp ngeen jàng am diplôme yu mag. am seen kër day am seen kër baay am seen i jaboot mm-hmm. bu leen ko dara yàqul réew maa ngoog nag ñun ñëpp doo ko bokk mm-hmm. lépp lu xam ne am na ci réew bi mm-hmm. du ko waru def leen rek àndoo ci lu baax rek waaw bañ a roy kenn Afrique